voilà. professeur. Mm-hmm. <laughs> toujours pas toujours pas essayé mm-hmm. mm. mm-hmm. am na ay élèves yu bëri yu ñuy seetaan. est-ce que mën nga leen <laughs> permettre ñu am suite. sujet philo bi génn. waaw léegi nii sujet bac bi. loolu loolu loo loolu taxu ñoo jóg <laughs> loolu taxu ñoo jóg. baaxul je blague. mais lan moo waraloon bu njëkk euh, mag ñi ragaloon seen doom jàng philosophie def philosophie. et pourquoi ñu koy comparer tout le temps ak folie. waaw ñaari question la d'abord bu njëkk bi boom lu tax mag ñu njëkk ñi doon ragal seen doom def philosophie euh, dafa am gisin bu ñu amoon gis-gis bu ñu amoon ci philosophie. te gis-gis ba nag lu ko juróon mooy comportement. xëy na ñi nga xam ne doon jàngale philosophie ñoom dañu gëmoon ne kii jàngale philosophie ay rasta lay def sol ay yére yu tilim sol benn daal laase benn bi wala daal yu niroowul ak yooyu ba tax na nag kenn du nangu sa doom kooku doon reyukaayam hmm. léegi nag euh, boo gisee fi mu nekk ni ñun suñu combat mooy wane jëm philosophie bi yoo xam ne méngoo na sax ak li philosophie doon hmm. parce que philosophie newul leneen dul école bu ñuy tàggatee xelu doomu aadama bu ñu tàggatee xelam jox ko ay devoiram jox ko ay ci biir société bi mu nekk moo tax nag fi mu nekk ni boo seetloo de plus en plus euh, ragal bi ñu ragaloon mu ngi gënoon tënku ci mooy ñu gëmul yàlla li ma koy faral di waxee euh, may wax ne li ci ëpp gaa ñi dañ doon jël seen nekkin dal di ko dénk philosophie maanaam bu fekkee yow yàlla dalaa nattu ngay naan sangara yàlla bu dee dalaa nattu ngay tux yàmba yow au lieu nga assumer ne loolu sa faiblesse la faiblesse humaine la nga daal di ko jël wéeru ko ci philosophie su ko defee ñi daal di gis ne philosophie kat képp ku koy def da ngay tux yàmba naan sàngara da ngay mel ni ku dof da nga naan yàlla amul ak yu demee noonu alors que philosophie yoonam nekkul ci loola maanaam yaay jël say faiblesse làqu ci ginnaaw philosophie di ko ca wéyele ñun nag suñu liggéey mooy ñu jéem a wone lan mooy philosophie xamuñ sax lan mooy philosophie mais xam nañ ne philosophie dafa dumoyu lépp loo xam ne loraange doomu aadama la philosophie dafa du dumoyu lépp loo xam ne yàq société la kon philosophie li ko tax a jóg maanaam ni ma la ko waxee ci tënk mooy day yeexelu nit bu yeexelu nit def ko un citoyen libre un citoyen libre moo ko xam ne xam na àq ak yelleefam xam ne moom dafa war a jëriñ askanam waaye warul def benn xeet loo xam ne dina mën a lor askanam loolu lañ jàppee mooy le 25 mai mooy date bi. 9h mhm. lay commencé. incha allah rabi ku yéex a ñëw di nga ñàkk place. lu bari il faudrait que élèves yi teel a ñëw. teel a ñëw mën a am place yu dans la discipline. bu ko defee ñu toog li ñu war a def ànd ak Futurs Médias ñu def ko lu gën nañ ko defee woon daaw. Euh, professeur. Mm-hmm. Futur Média jënd na lu tolloog 200 tickets. daf koy maye. ci 88 628 22 22. dama cee kontaan lool lool lool. professeur. Mm-hmm. ban message ngay jox xale yi ñuy seetaan. message ba leen di jox rek mooy nañ branché wu ci télé bi nga xam ne dina leen jëriñ. Uh-huh. mooy télé Futur Média. li ma leen di wax rek mooy bu ñëwee fële. Uh-huh. nañu xam ne ñun dañuy jéem. fexe boo jàppale leen ci l'examen bi ñu war def le vingt cinq ñu génn ci ceeb génn ci euh, ay Baye dama bëggoon juste laaj professeur. parce que mhm. dañu déggoon ay jamono. Mhm. yu wax ni dafa amoon euh, problème formation ay professeur en philosophie. Mhm. bay taxoon gars pour ñaax étudiants yi ñu dem jàng philosophie. fu euh, ko gisee philosophie euh, bugguma newul a dañ koy xaw daw dañuy yaakaar à tort raison il est plus facile nga dem défilé la am say diplôme nga dem ndax nga defi philosophie boo xam ne nga faa jaaw te boo moytuwul doo yegg ci maîtrise donc loolu benn problème la ñaareelu problème bi mooy également euh, xëy na autorité yi euh, école de formation yi nga xam ne fa lañ doon tàggatee wax dëgg yàlla jàngalekat yi dañoo xaw a naxsaay fi mu nekk nii boo ñaari facteurs yooyu boo ko conjugué mooy tax euh, professeur de philosophie dafay xaw a manqué boo wax dëgg yàlla dinañ ne xëy na Pape Cheikh jàng na psychologie ñu ne pa xëy na psychologie niroo na ak philosophie ñu dugal ko ci te yàlla xam na ne lay psychologie lay sociologie du philosophie merci merci professeur. man maa leen di jaajëfal. tey ci guddi ñu séenaat la ci lëndëm bi. incha allah nga jàkkaarloo ak Khalifa Diakhaté. waaw jéem a du ma leen jàngal dañuy jéem a xalaatandoo rek. Euh, jàngoro yi ñu jànkoonteel ci bés bi bu jant bi sooyee. Ah. ñu jëm leen saafaral ci suñu kàllaama. jërëjëf professeur jaajëfati. merci. merci professeur di la wax nag naroon naa fàtte yóbbante bi sama soxna Mbale. Ah. nee na ma ma wax la ne moom mooy fan sa numéro un. mais comment elle fait avec toi mbaa doo ko jékki-jékki naan ko madame. <laughs> moo bu ko wax mu expliqué ko. li ngay seeyee daf ma ne xam yow waaw mais loolu amuñ problème boobu. <laughs> bu ñu waree tàccu dañ koy tàccu bu ñu waree sanctionné tamit ñu en tout cas bu baax. yal na yàlla yàggal fii ci euh, télévision Futur Média. c'est toujours un plaisir di mm-hmm. c'est la mm-hmm. seule émission boo xam ni boo ko seetaanee même mm-hmm. lay attirer et c'est important. ak euh, professeur Songuek Khalifa Diakhaté ñu ngi lay gërëm je rappelle encore que 200 Futur Média moo euh, may xale yi lu toll ci 200 tickets yooyu nag bu ci bëgg woote ci 88 628 22 22 toute la journée fii ba le 25 mai nga mën a am place bu baax pour mën a dem seetaani professeur euh, mu jàppale la ci xam-xam bi en termes de euh, philosophie Adam Mbaye sera de la partie Malal Talla sera de la partie ah ak tant d'autres qui mhm. viendront mhm. accompagner tous les élèves même les grandes personnes mhm. yu bëgg a fekkee mën ngeen dem donc Sorano le 25 mai je pense que mën nañu xool annonce bi comme ça ngeen gën cee mën a bàyyi xel juste après on se retrouve pour la suite vite. La vie est un combat de tous les jours. Une bataille dont on connaît l'issue six pieds sous terre. Pourtant, il y en a qui s'emballent de la vie et qui finissent dans les abysses et d'autres qui abdiquent. Pas plus que la philosophie n'est la science, la philosophie n'est pas la religion. L'adhésion qui est exigée en philosophie, nous l'avons dit, est une adhésion qui est de l'ordre du rationnel. En religion, l'adhésion qui est exigée, une adhésion émotionnelle et sentimentale. Mais vous vous rappelez de Pascal, tapant sur la table et disant, entre guillemets, subhanallah, ce Dieu-là auquel tu parles Descartes, c'est ton Dieu à toi, c'est un Dieu de philosophe. Qu'est-ce que ça veut dire Descartes Je doute, je suis imparfait. Si je suis imparfait, il y a un être parfait. Cet être parfait n'étant pas moi, il ne peut être que Dieu. Pascal éclate de rire en disant, ça c'est philosophes et des savants. Et la salle Sorano, temple de la philosophie, le dimanche 25 mai à partir de 9h. Comme l'année dernière, venez nombreux suivre la synthèse du professeur Elage Sanguediouf dans la perspective des anticipés de philosophie dans le cadre de la préparation du baccalauréat 2014. En première partie, une représentation sur Mandela, source d'inspiration. Le slammer du troisième millénaire, Arambaï, sera au rendez-vous. Malaltal déroule son concept rap et éducation. Synthèse de philosophie le 25 mai à 9h au Théâtre National Daniel Sorano avec le professeur Elage Songuediouf. Entrée 3000 francs. Vous pouvez gagner également une des places offertes en également au 88 628 22 22. Rappelez-vous Karl Popper, montrant même qu'il serait paradoxal et contradictoire d'envisager, dans le domaine de la science en tout cas, de vérité qui puisse être absolue. Voilà donc rendez-vous est à partir de 9h bu leen fàtte suñu ay euh, rendez-vous euh, éducation na ci euh, loolu nga xamante ni moo di l'art bokk ci itam euh, seen petit génie